fas yéene may leen tey secret boo xam ne bu efficace la ki soxla bu nit mën a am ci kaw suuf nag moo xam ku bëgg am wërsëg la moo xam ku bëgg a tijjiku la moo xam ku feebar la bëgg feebar ba taju moo xam ku bëgg a tukki la ak réew mu mu a dem ci àddina bi bu ko defee suñ borom subhanahu wa taala dina ko ca dimbali saraxob universel la bu yomb la ni ngay def mooy da ngay wut fukki mburu ak benn mburu mu ci nekk nga dagg ko ñetti dagg insha allahu rabbi dagg wu ci nekk nga jàng ca fatiha benn yoon moy 33 dag nga am 33 fatiha nga jël mburu yoyé dal di koy sarax ay xalé insha allah rabbi azza wa jalla yéene ca bépp aajo boo am suñu borom subhanahu wa taala fajal lako képp ku ñu yitté wo ci walum sét nak wala istikhara man nga ñow wo ci 78 178 03 03 jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara tay nak dama ñëwaatoon di leen may noob go am doole lool gu yéme lool go xamné lu ko ëpp doole ci xeeti noob yi am man gisumako képp ku ko def ko xamne dang ko bëgg fas soxna insha allah rabbi ding ci jot wa rabbul kahbati képp kuy liggéey ci bërëb mo xam bitim rew nga nek wala ci rew mi nga bëgg noot ki lay lo ba nga xamne lo sakku ci ba mu defal lako bo defé li mala wax insha allah rabbi lol dina jàppandi mo xam nit ku ñuul mo xam nit ku wex mo xam kuy lak wolof mo xam kuy lak lak wu mën doon ci kaw suuf képp ko yalla defal nday jor, akup boo ko noobee noob nob ma la wax ding ko japp allah lu yomb la fexeel ba wut butéelu maawul wérd xëy na li koy jaay du romb ñaar téeméer 1000 francs nga ñëw ba ci ñaari ngeer nga taxaw ci digg bi sotti ñaa maawul wérd gi ci ñaari garab yépp boo noppee côté bi nga xam ne moo féete ci ndeyjoor nga tànn ci juróom-ñaari xob bind ci sa tur côté bi la féete càmmoñ nga tànn ci juróom-ñaari xob bind ci turu ki nga xam ne moom nga bëgg a noot daal ko fay bàyyi dem incha allahu rabbi lii képp ku ko def nit ba illa yawmil xiyaamati da yàlla jox ab xolam da yàlla jox am xelam te du am sago ci yow incha allah képp ku ñu yittewoo ci wàllum seet ak istixaara nag mën nga ñëw woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bari na nit koo xam ne mi ngi daw fu nekk ci sëriñ si dem fu nekk ci àddina di bind lu nekk di takk di naan du ca gis résultat bokk na ci li ko waral mooy yaram wu taq wala ku ubu wala ku cat jàpp wala ku ñu liggéey bari na koo xam ne lu ne dugg na ci bunti wërsëgam mënut munta tëju. ndeke xam-xam dafa nëbb waaye soriwul képp koo xam ne fexe nga ba am ngeer ak foo ko mën a amee ci àddina incha allah baax na wut ci ay car lu mat ñett car nga def ko ci ndox incha allah nga wut juróom-ñaari pièces ñaar fukk juróom-ñaari pièces cent franc muy sept cent franc bis bu set boo demee bay sangu nga jël wenn cent franc def ci biir ndox mi boo sangoo ba noppi nga seppi cent franc yi saraxe ko ñaan ci sa aajo incha allahu rabbi suñ borom dina tijji sa bunti wërsëg suñ borom dina la bette wërsëg ci sa ndeyjoor ak ci sa càmmoñ ba nga jàpp ne ay jinne ñoo lay jox xaalis fekk sa wërsëg rek moo ubbeeku incha allah ku ñuy teewoo ci wàllum seet ak istixaara nag man nga ñëw woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk mi dafay laaj yàkkay kamuusin bëggoon ñoo indil ko ci ay leeral nee na moo nekk nii ma téye bu fekkente ne bind nga ko baax na bu fekkente ne wér di nga ko itam baax na. waaye bu fekkente ne da nga koy wérdi nag li gën mooy yaa kay ka muusin nga wérdi ko cent soixante quinze fois bisub alxames boo ko wérdee ma noppi incha allahu rabbi nga daal di wut ñetti mburu mburu mu nekk nga dagg ko ñetti dagg muy juróom-ñeenti dagg nga di koy saraxe incha allahu rabbi lii mbokk yi dara gënu koo gaaw ci ubbi wërsëgu doomu aadama ñëpp xam nañ ne ci wërsëg rek rek rek ci lay dox képp koo xam ne saxal nga di ko def incha allahu rabbi suñ borom subhanahu wa taala mën na laa bette wërsëg woo xam ne yow ci sa bopp sax sa wërsëg woowee dootoo xamante nu mu toll incha allah kii di laaj yaa kay kamusi ndax xam naa ne am na lu bari lu mu xam ci lasaraar ndax turu nëbb la kon ñi nga xam ne ñoo ñuy tëw ci wàllum seet ak istixaara mën nañ ñoo woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ba tey mbokk yi képp koo xam ne danga am doom ju jigéen bëgg du ma yàlla mukk ci àddinaam walla bépp góor bu ko tiimati du nekk góor. ba kérok muy takaliko ak moom incha allah rabbi wutal karawu genu fasu jigen nga ew ko ab téré takal ko ko ci ndigam incha allah bépp góor bu ko tiimati ci kaw suuf du nek gor képp ko xamna nga am ay jafe-jafe fune nga dem fa ci adina mënul faju galaj gune nga sango ko mënoo ci am saafara incha allah rabbi batay bu fekente ne wut nga juróom-ñaari kilo dugub kilo bu nek nga jang ci juróom-ñaari fatiha bisub nga dal di koy xëppal aw fas mu lekk ko bala nga ko ko xëppal nag nga ñaan ci sa soxla incha allahu rabbi soxla su mën a doon suñ borom subhanahu wa taala dina la ko fajal képp ku ñuy yittewoo ci wàllum seet wala istixaara bu leer mën nga ñëw woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi tey laalaake laa leen andil laalaake képp ku la laal ku mu mën a doon yàqu ku la jéem a liggéey yàqu ba illaa yawmil xiyaamati moo tax nit ñi dañuy jéem ci nit ñu lu baax am na ñoo xam ne ay laalaaka lañ yor ku leen lal yàqu loolu nag ngir nga am ko lii ngay wut déggi sump déggi sump yi ci ngay fexee wut wutal onze déggi xump wut onze déggi limon ak onze déggi dem incha allahu rabbi nga boole leen lépp dugal cim ndox baxal ba mu bax nga def ko sa sangat fexe ba sangu ci ñetti dimanche yu tegaloo incha allahu rabbi képp ku la lëggéeyati ci kaw suuf lëggéey bi day dellu ci kawam moo tax boo ko defee ku ñëw naan la baal ma na ko laaj loo ma def ba pare bul baal kenn te waxu la li ko def ndax képp ku la jéem a liggéey dina ko dina ko gis te liggéey bu mu fekkoon ci saw dina ko dindi incha allah ku ñuy tiwoo ci wàllum seet ak istixaar nag mën nga ñëw woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi ci àll bi ba léegi ñu fas yéene leen a may ay njariñ ay secret ci sexaw ñaan ko kenkeliba sexaw ñu bare bare jàpp na ne ndékki rek lañ ko war a def wala boole koog suukar di waye nak ay njariñam dafa bari lol lol lol suñu borom def ci ay keman ak miracle ak kawte fi kenn xamul lu mu tollu bokku na ci li ci gëna yéme moy aw xobam maam du déplacer wu ci suufam fam rat falay nek ba illa yawmi khiyamah du déplacer wu ak lu ngelaw li bari bari bari motax kep ko xam da nga nek ci tukki bañ ñu refourlé la délo la ci sam réew wala nga nek ci place bañ ñu jëlé leuf wala nga nek ci nguur mo xam ndom bak tank go mëna yor ci kaw suuf bañ ñu tekki bak tank goge fexew mi moo ci gaaw te it noonu la gaawee ci wërsëg wutal 33 ci ay xob ci fexew xob wu ci nekk nga bind ci razaqu wut parfo aruna nga def ko ci insha allah rabbi sangu ci juróom-ñaari fan xool beurep ba nga nek insha allah rabbi ba illa yawm al xiyaamati nit dula fa jële budé ab tukki la bu fekkente ne ndombal tànk la kenn dula ci ca téggé fo teggee nek ci àdduna nak yow dañ lay ñé rek waye do ñé kenn insha allah rabbi jël len secret bobu ñi nga xamne ñoy ñooy laaj suñu numéro ci walum seet ak istixaara mën na ñoo woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu képp koo xam ne da bëgg wërsëg ba tey maa ngi koy joxeti ministre de la finance laa lay joxeti ba léegi bii ci yooyu la bokk képp koo xam ne da nga bëgg wërsëg bu baree baree bari sa bunti wërsëg yépp ubbeeku ngay nangoo ci ndeyjoor ak ci càmmoñ sóoratul wàq nga ngay bind fexeeloo bind ko benn yoon wut meewum xar wala moom bëy wala moom nag xooj ko ca saafara sa def ci ndox fexe ba sangu ci ñetti fan yu tegaloo incha allahu rabbi bisub alxames nga koy bind nag meew ma bisub alxames nga koy wut lii képp ku ko def incha allahu rabbi dina nangoon nday joor ak càmmoñ wërsëg ba jàpp ne ay jinne ñoo koy joxe incha allah ku ñuy tuwo ci wàllum seet ak istixaara nag mën nga ñëw woo ci 78 178 03 03 mën ngeen yaatal vidéo bi partage ko ngir njariñ la mën a dem ci ñëpp wasalaamaaleykum wa képp koo xam ne bëgg nga suñ borom subhanahu wa taala ubbi sa bunti wërsëg defal la xéewal gu bare bare bari defal la wërsëg woo xam ne yow ci sa bopp di nga dem ba doo xamati num toll da ngay wut alliwo da nga koy weccee ko ci law bi wala foo ko mën a wecc koo baax na nga bind ci suratul waqiha benn yoon dal di koy raxas ba mu set ndox moomee nga ci raxase incha allahu rabbi nga def ci suukar ak xorom sangoo ko ñetti fan incha allahu rabbi di nga tijjee ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. ngeer garab la goo xam ne nit ñi dañ koy romb waxtu wu nekk. te njariñ yi nekk ci ñoom xamuñu ko garab la goo xam ne seytaane ñemewu ko comme ni ma ko waxee woon rab ñemewu ko jinne ñemewu ko te lu gaaw la ci toj ab liggéey lu gaaw la ci dind cat lu gaaw la ci dàq seytaane loolu boroom xam-xam yépp xam nañu ko moo tax sëriñ si nga xam ne seenum faj dafa màcce jëm ci wàllum faj rab wala dindi liggéey wala dindi saytaane wala nitu guddi fonk nañu ko lool incha allahu rabbi képp koo xam ne wut nga ngeer mii loo ci am baax na moo xam benn ngëpp nga ci am moo xam juróom-ñaari ngëpp nga ci am nga def ko ci ndox baxal ba mu bax nga wut xorom def ci boo mënee wut juróom-ñaari cofe xorom nag moo gën incha allahu rabbi nga fexe cee sangu juróom-ñaari fan incha allah lépp lu nekkoon ci sa yaram lu baaxut moo xam cat la wala seytaane wala liggéey wala nitu guddi wala lépp lu baaxut lu nekk ci yaram dina ko dindi ba mu set wicc wicc wicc incha allahu rabbi ku ñuy tuwo ci wàllum seet wala istixaara nag mën nga ñëw woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk mi ñu ngi jëm ci at mu bees muy 2024 waaye ñu bare bare bare ci Sénégal dañoo ne at mu bu fekkente ne ci atum tubaab lay doon wari su ca génne ay sarax fekk loolu erreur féetewu ko kaw parce que ñaari xeeti ataam mooy at mi nga xam dañ koy jàpp ci weer wi ak at mi nga xam dañ koy ci jant bi ñi nga xam am xam-xamu astrologie xam nan bu baax a baax a ni nga wara a ci atum wer wi non nga wara a saraxee itam ci atum jant bi kep ko xamne insha allah rabbi altene gi njëkk ci 2024 fekk na la fi wutal ñetti kiloy dugub nga sarax ko ku jigen wut ñetti kiloy mbokk nga sarax ko ku góor insha allah rabbi suñ borom leen defal tawfiq ndax atum rek mi at la mo xamne atum xéewal la rawata na ci walum mbay atum natangela atum yiwla atum xéewal gu bare bare bare la ci walum Sénégal insha allah rabbi waaye xéewal googee ngir nga man cee jot dëgg dëgg dëgg dëgg lay sa wàll insha allahu rabbi il faut da ngay saraxe nag ñetti kilo dugub nga sarax ko ku jigéen ñetti kilo yu mboq nga sarax ko ku góor insha allahu rabbi ñaan ci sa soxla suñ borom mën na laa jàppandal ci xéewal yi nga xam ne fas na koo joxe ci at mi nga xam ne mooy atum jant bi di 2024 insha allahu rabbi azza wa képp ku ñu woo ci wàllum seet ak nag mën nga ñëw woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ba tey ma dellusiwaat di leen may secret bi nga xam ne moom la ñuy wax ministre de finance am ñu koy woowee carte gab am ñoo xam ne banque lañ koy woowee waaye mag ñi nga xam ne nag ñoo yoroon lasaraar di ko doxal ñu di ko dondante de sénération à sénération ba mu agsi ci ñun tey ñoom nag ñu ngi ko daan woowee xëy mos secret boo euh, boo xam ne la képp ko ko def incha allahu rabbi boo xëyee loo gàtt gàtt gàtt gàtt wërsëg di nga jot ba jot loo xam ne dina la fajal sa soxla yépp incha allahu rabbi képp koo xam ne suuratu xurayshin baat bu ci nekk bind nga ko téeméeri yoon nga def ko ndom ba takk ci sa ndigg def ko ñaari gaw lépp looy lijjanteeti ci wàllum xaalis incha allahu rabbi di nga ci jot incha allahu rabbi li fekk mi ngi ci sa ndigg di nga dem ba sa wërsëg doo xam ne mu toll di nga nangoo ci ndeyjoor ak ci sa càmmoñ ba nit ñi jàpp ne da ngaa nekk ci lu ñuy tere wala ay jinne ñoo lay jox xaalis incha allahu mom la mag ñi daan wax xëy mos gone yi nga xamne def nañ ko ba gis ko léegi nak tudde ko ministre de finance incha allahu rabbi lu ko gëna gaaw ci maye xaalis man xaw kon nak kep ku jot ci vidéo bi nang ko partager ngir sa morom man ci jot mën am ci xéewal yoy incha allah ku ñuy tiwoo ci walum set ak istikhara man nga ñëw wo ci 78 178 0303 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kep ko xamne nga am ay jafe-jafe fune nga dem fa ci adina mënul faju galaj gune nga sango ko mënoo ci am safra insha allah rabbi batay bu fekkente ne wut nga juróom-ñaari kilo dugub kilo bu nek nga jàng ci juróom-ñaari fatiha bisub khamis nga dal di koy xëppal aw fas mu lek ko balang ko ko xëppal nak nga ñaan ci soxla insha allah rabbi soxla su mën a doon suñ borom subhanahu wa taala dina la ko fajal kep ku ñuy tiwa ci walum set wala istikhara bu leer man nga ñëw wo ci 78 178 03 03 wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lii ma leen di may tey xawma ministre de la finance laa ko war a tudde xawma carte gab laa ko war a tudde xawma banque laa ko war a tudde waaye daal li ci am solo mooy ci wàllum xaalis rek rek rek rek ci lay dox yow mi nga xam ne dangaa am projet bëgg koo financé yow mi nga xam ne dangaa bëgg a tukki te amoo paas loo daggee billet yoon yow mi nga xamne da nga ami bor yo wara fay yow mi nga xamne da nga amo xew te amo dara lo ca def déglul li malay wax bu baax a baax incha allah bind ko fukk yon ak ben 11 fois bo noppé nga daal di wut 11 pomme yu werte ak 11 pomme yu xonko nga def ko ci bir safara daal di koy sango ben yon inshallah rabbi seppi pomme ya sarax ko ay xale inshallah azza wa jalla semaine bobé nga ko defé bala jàll di nga jël lu bare bare bare ci wërsëg ci sa ndeyjoor ak ci sa càmmoñ incha allah def leen ko xool ku ñuy tiwoo ci wàllum seet wala istixaara mën nga ñëw woo ci 78 178 03 03 wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yow mi nga xam ne ab commerçant nga moo xam bu mag nga moo xam bu ndaw moo xam bitigu mbagg nga yor walla nga yor ay magasin. li ma la wax bis boko defé di nga jaay sa marchandise ba jaaxal kep koy jaayandoole incha allahu rabbi wa rafahnaahu makaanan aliya bind ko 111 fois inshallah rabbi nga wut bale gu bes tàq gu kenn mësta moy bale seug yi nga koy sëpp ci safara fi diko wiss ci sa marchandise inshallah rabbi mépp marchandise moko def du taxaw mo xam keur ngay jaay mo xam ay auto ngay jaar jaay beug mu jaar mo xam ay magasin nga yor moo xam lépp loo man di jaay bañ mu taxaw ci sa loxo incha allah boo bindee war a fax naa ma ma makaanan xaliyan cent onze fois def ko saafara wut ak bale gu kenn mësta bale nga di ko ca xooj di ko seppi di ko wis ci kaw njaay ma incha allahu rabbi moomee jaay du taxaw ku ñuy tiwo ci wàllum seet ak istixaara mën nga ñëw woo ci 78 178